que tontu foofu wala ñu. mu ne mu ni Sonko dafa waxoon ci euh, tudd Ahmed Khalifa Niass ba tudd ay cëram ak Amine Ndiaye aussi li mu wax ci sëñ Moustapha si est-ce que homme politique gu sëñ Moustapha Sy lay wax wala sëñ Moustapha Sy en kilifa diine. laa man du ma ko tontu. na ko dem laaj président Ousmane Sonko ndax yàlla dëgg la bëgg. Mhm. fii ñoom li ñuy def lañ leen di waxal. Mhm. parce que c'est pas moi c'est président Ousmane Sonko. Mhm. c'est pas moi c'est Ahmed parce que Ahmed Khalifa Niass mooy defante mooy tudd Ousmane Sonko Ousmane Sonko di ko tontu du dëgg. Mm-hmm. waaye Ami Ndiaye assemblée nationale la taxaw di xottay wor may ay jullit. Mm-hmm. waxuma la kenn ay jullit. Mm-hmm. mais moom tontom boobu na ko dem laaj président Ousmane Sonko parce que am na fu may bëgg qualifié te fi may bëgg qualifié sax falaa nekk. parce que bu demee ba Ahmed Khalifa Niass taxaw. am audace tudd la yow shérif ne la shérif yow mii laay waxal nangam. Mhm. nga am fu lay tontu ko. Mhm. loolu moo waral dóoru Ami Njaay yi taxaw ne sëñ Moustapha Sy nangam bi xotti war maam nit nag boo ko tuddee te mu am mbooloo am ay taalibay topp sa gannaaw dañ la dëbb ba nga mel ni gi mhm. tey bu doonte ni jigéen la dajal jigéen bu ko jege jigéen bu am ful la balaa ku góor ka ak jot ku jigéen ki moo koy njëkk a dóor te kenn nag du rafetlu ay dóor moom loolu laa koy tontu. tey Ahmed Khalifa Niass am na droit di tudd turu nit di ko saaga loolu la tey Amy Ndiaye def bu te amee audace tey taxaw président Ousmane sonk mu ne ko nangam bii président Ousmane sonk moom làmmiñam damm ci poosam ku ko wax dina la tontu loolu laa koy wax man. Mhm. loolu du sama tontu na ko laaj am président Ousmane sonk ak Ahmed Khalifa Niass kan moo ci tooñ moroomam quant mhm. à Amy Ndiaye nag moo taxaw tudd sëñ Moustapha Sy foo xamante ni politique boolewu leen. Mhm. àndandoo boolewu leen. cours bi nga xam ne d'école sax bi ñu war a bokk boolewuñ ko ay taalibeem sax dañoo ëpp Ami Ndiaye euh, euh, ëpp ko wilaaye ëpp ko lépp mu taxaw am audace am fit comme ni ma koy gisee ci internet bi mhm. ñuy taxaw di saaga sëriñ si ñun amuñ sudul sëriñ si nga xamante ni ñoo fi ne ñoo fi tëdd seeni sët fi ne ñu respecté leen te tey sëñ euh, Moustapha Sy moo ñu fi nekkal suñu sëriñ Cheikh ñun moom la ñu gëm moom la ñu bëgg tey bëgg ko ëllëg kon bu taxawee nag di am noo xam ne da koy doxalee da kooku rek a jot ci moom. d'accord alors am na tam shérif lu xew mm-hmm. loo xamul. Mm-hmm. moom monsieur Samb honorable bi ñu kiiyee tam dégg nañ ne dem nañ këram lakk nañ ko. Mm-hmm. wala sànni nañ fa ay xeer def fa du n'importe quoi Sénégal li ñuy def xamuñu dëgg. parce que kii wax nii bu doon xam na dëgg du waxee nii di ma ko laaj parce que man awma tontu bi da koy laaj président Ousmane Sonko fulla googu mag man am naa ko. parce que boo waxee jëmale ci man di ma laaj. da ngay dem laaji président Ousmane Sonko moom làmmiñ làmmiñam tam dammul ci poosam te ku ko bëggit am nga fulla ak fayda goo xam ne mbéjum kanam borom a koy fajal boppam sénégalais sa dañoo am fulla mhm. waaw moo tax Ami Ndiaye moom la mu def moom moo ni woneen rek nii nii mu mel nii nii la kii te jigéen bu diñ jigéen ju am fulla am fayda bu ëllëgee tey bu demee lan lay wax waa la xale yi naan boo demee lan ngay waa koñ ba mooy lu muy wax waa ñii bi bu demee est-ce que bañ koy indi assemblée moom Ami Ndiaye dañ ko tegoon pour moom mu taxaw ñëw di saaga ay sëriñ wala mm. muy xaste wala muy muy muy taasu biir assemblée loolu yóbbul kenn assemblée une fois de plus ñeen ñi ñu ko war a wax muy opposition muy pouvoir képp koo xam ne yaa ngi taxaw di di di di lijjante ay tapage yoo xam ne ay nit a la koy def di la ut parce que nit ki nee nañ bu lay ut ut jotu la day seet fi la gën a jege mu jaare fa parce que muy tapage tey du samay wax de mu ngi mm-hmm. tapage tey taalibe sëñ Moustapha Sy mm-hmm. mu ngi tapage taalibe tey Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ñépp lay laal seen honneur parce que dañu respecté sëñ Moustapha Sy respecté Serigne Cheikh tey bu ñu amee nu ñuy toogee tey dañuy namm sëñ Cheikh dañuy déglu sëñ Moustapha Sy mu doon suñuy nopp doon suñu gémmiñ doon suñu làmmiñ kon bu ñu ko respecté loolu tamit lii mu am rek lii lay mérito d'accord alors looloo ko waral ñu ngi ñuy signaler aussi mhm. que de députés yi nga xamante ni ñoo faree fee ca PUR mhm. euh, amoon a euh, problème ak euh, Amy dañ leen a arrêté donc sur euh, alors ni ñu ko bindee arrestation des deux députés du PUR sur ordre du procureur suite à l'agression perpétrée sur le collègue Ami Ndiaye donc mu ngi noonu Ousmane ñu ko affiché ci mhm. muy mel ni aussi que procureur euh, woo na leen euh, daal di leen euh, yóbbu fa mbaxane doone benn xam naa li ci jot a jukki ci ay xibaar fii émission yi di ñëw ak yeneen actualité yi dinañ mhm. ko indi incha allah. Chérif loolu du mhm. mën a ñàkk de parce que mbiru yoon yoon la parce que bu demee bagaar am coow am rek ba jéggi dayo rek il faut yoon dugal ci loxoom parce que dóor du yoon saaga tam du yoon parce que boo demee ba am nooy defee. Mhm. dina am foo xam ne dina fa yegg foo xam ne yow mi nga xam ne yaa sooke tooñe. Mhm. doo doo doonoo ko woon bëgg. liñ mhm. naan mbirum yoon ku la ci gunge naan bu doon man bu doon man la bu doon moom la du ko def. parce que yi ci mbirum yoon buñ la gungee gungee gungee ba ca bunt ba moom bàmmeelayam dañ lay bàyyi ca bunt ba. wala ñoom ñu wàññeekoo ca bunt ba dem woon la gannaaw loolu mooy seytaane kenn du ko woo boo ko wooyee bu la wuyoo tamit mhm. tamadan la ëppi buub moo tax am na ci yoo xam ne kenn bu mu ko woo biir assemblée te j'espère que ce sera la fois bi nga xam ne mhm. nit day taxaw di agressé parce que président Ousmane Sonko biiroon na lu mel noonu mhm. nit góor ne léeg-léeg naar ak kilifa ñoo fekk nit taxaw nga naan da koy dóor te ki ngay dóor xamoo fu dooleem toll xamoo fu man-manam toll ñu toroxal la àdduna bi yëpp di la joobe Euh, ci mbirum euh, arrestation bi la ñuy des ba tey euh, parce que ñu ngi naan ñu ngi signaler que ni am na ñoo xamante ni rafetlu ñu le fait ñu jël leen mais tey comme li ma doon wax sànq yaay booy bu fekkee comme dañ lay woo ci benn mbir tey ñëpp xam nañ ni opposition bi ñoom dañoo am benn combat bu nu mëne woon ba ñuy dem assemblée tey boo gisee xuloo bee xiiroo bi dafa mel dañ leen ceewoo mais ñoom aussi ñu tombé ci liñ leen liñ leen waaw dañu tombé ci piège parce que mm. nit boo amee ci luñ lay woo boo amul maîtrise tuuti tuuti rek mooy li ma la wax nit boo koy wut wut jotoo ko da ngay seet fi ko gën a jege. Mhm. parce que xam nañu mën nañ leen ut côté bu nekk dinañ mën a résister mais tey boo amee koo xam ne tey nga ne man dama gëm Serigne Saliou boo amee noonu baat boo tegal Serigne Saliou wala nga teg ko ci keneen. Mhm. sama wasi la boo xam ne man dama ko bëgg du su may jóg di la dóor duma ko tey. Mhm. parce que nit boo ko xeebalee sëriñam rek di nga jot ci koom. yaa ngi dégg am na ci yoo xam ne nañ ko bàyyi ñun ay sénégalais lañ duñ ay tubaab. ay mm. africain lañ duñ ay tubaab mm-hmm. parce que dañoo am ngëm-ngëm am fu ñu jóge am nday am nday am baay ab xam fu ñu jóge te am fu ñu bëgg toll mm-hmm. nit nag boo xamee fa nga jóge xam fi nga toll xam fa nga bëgg a jëm dangaa war a am toogaay boo xam ne toogaay bu rafet bu la nit ñi nawee mm-hmm. am na ñoo xam ne tey dañ doon ay archive ci assemblée tey supposons tey président Moustapha Niass bi mu nekkee assemblée tey saccage bi coow lii brouillon bi nga xam ne am na assemblée tey Amadou Mame Diop war na am personnalité ak dignité en tant que kon moom teg nañ ko fa teg ko fa par force war naa mën a par force. Mhm. moom imposer nit ñi lan mooy réglement assemblée nationale lu ñuy wax ñu wax ko ci politique buñ doon sax dañuy xeex ci politique. Mhm. sama lii dama koy de kii daf ma ko teree wax wala sama heure sama heure d'audience damaa war a wax. yaa ngi dégg kii terew ma ko laa mën ngeen cee wax mais yow nga war a taxaw war a wax sa cinq au lieu nga wax fulla wax fulla wax jom dem sa yoon amoo looy def lu dugg ci mbirum sëñ loolu mooy da bëgg yàq sa bopp. yàq sa bopp parce que souvent dañuy wax ni ñoom bu ñu ñëwee affaire Sweet Beauté la ñuy wax wala yu demee noonu mu mel ni euh, argument tamit euh, bëriwul ci seen côté. dëgg la Chérif xam nga boo toogee comme yenn député yi ñu ma ko sañ wax liste lañ leen dugal du question ni dañoo xeex affaire ñun bu ñu naxante am na ci ñoo xam ne tey dañoo ñefe ñu muy dégg. Mm-hmm. nekk ci restaurant nekk biir Sénégal di sonn nekk ci région yi di sonn doon ay ay ay coordonnateurs yoo xamante ak ay coordonnatrices yoo xam ne dañoo jiite ay parti mhm. mérito woon te ñu yóbbu leen assemblée te teguñu leen fa ñu jël ki genre ki Amy Ndiaye yi teg leen fa parce que xëy na seen làmmiñ dafa dang wala mën nañoo tontu. te aussi gis nañ muy saaga moom. waaw am na ci loo xam ne. xam fa nga jëm xam la nga fay wax a ko gën. Mhm. boo xamee fa nga jëm ba pare te yow xamoo lan nga fa war a def wala wala lan nga fa war a wax yow jarul ñu la fay teg. Mhm. parce que la la nga fa war a def ak la nga fa war a liggéey ba nit ñëpp applaudir la. parce que man damay am ñoo xam ne tey dañuy nekk APR. Mhm. di wax dama leen di fan parce que da ngay xam ne ñii ci dëgg lañ nekk xam nañ lan moo leen fi indi mais boo nekkee koo xam ne dañ lay manipuler wala dangaa nekk koo xam ne sa bopp bi wayut jigéen warta waye di à ce point que ñu lay manipuler. def la femme objet di la defloo wala ñu lay waxloo def la benn marionnette boo xamante ni à chaque fois lu ñu bëgg di la defloo da nga koy def. Mhm. loolu waroon nañ ba ne egg fii bañ naan jàpp nañ tey député pur yi teg nañ fii fa la teg nañ leen fay dëgg la du yoon kenn du dóor jigéen loolu. duñ ko mhm. cautionné mais Amy mii war naa jekkalaat toogaayam honoré jigéen ñi nga xam ne tey jaar nañ assemblée jigéen ñi nga xam ne tey ñu ngi assemblée. Mhm. tey ñun suñu yaay Woré saar day nekk di wax di wax dëggam goo xam ne da leer ne. li muy wax dëgg la te du ci boole benn saaga. du ci wax lenn parce que gis nañ fi tey muy adressé wu a Antoine Diome. Mhm. di ko wax en tant que doomam mel ni kuy wax ak doomam te du dépassé benn limite. Mhm. du dépassé loo xam ne tey nit dina na saaga la. Mhm. dina la dëj sa ànd wax la li ñu naan mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla moo tax nit. boo bëggee doon une personne sage muy jigéen di góor da ngay jege mag ji. xam lan mooy éducation xam nga lan mooy war worma. nit waroo topp foo toll di xotti woor may nit li ñu naan mag mu jaaxaan di saw boo ko defee foog ne boo colalee mu jëm ca nit ña fekk sa kaw lay njëkk dal moo waral dóor yi nii. mais kon ak nu mu mënta mel tam yoon da ciy mujj. Mhm. lii tam c'est une bonne leçon pour les autres yi nga xam ne dañu bëgg a taxaw assemblée rek bëgg ko def ring bëgg ko def boxeekaay bëgg ko def mhm. xeexeekaay sénégalais yi bu ñu leen wóoloo. ñu di leen fay suñu xaalis defuñ ko pour ñuy def assemblée def ko làmm. Mhm. loolu du dëgg du yoon nañu xoolaat seen toogaay xam ñoom lan la ñuy jar peese seen bopp ku ne dugg ruq mën a kan. Mhm. comme ni ko sëñ Cheikh Al doon waxee ku nekk duggal sa ruq mën a kan nga waxtaan ak sa njegenaay bañ ku la man manipuler. Mhm. mel ni tey soxna Mimi Touré man kooku dama koy jël référence parce que jigéen bi nga xamante ni jigéen bu am fula la am jom xam na li ko yëkkati xam na fan la bëgg jëm. donc nit bu xamee amee fu mu jëm mu am fu mu toog. ba xam fu mu bëgg a jëm nga bëgg ko yóbbu fa nga xam ne gënalu ko day wàññeeku taxaw parce que nit boo demee ba xamoo foo jëm da ngaa war a dellu fa nga jóge woon looloo waral soxna mu Touré dellu fa nga xam ne foofu la jóge woon mooy ci dëgg mhm. parce que dëgg mooy jëkk mooy mujj soxna ami tamit yàlla na ko yàlla dimbali bu jógee na jéggalu parce que tooñ diggante nit ak nit sax waxuma sëñ mustafaa parce que sëñ Moustapha nit la comme chaque personne mhm. nit la boo xam ne bu ñu war a respecté comme man ni ma la war a respecté Chérif comme ni ma war a respecté soxna Ami Ndiaye coow li yëpp moom la. Mhm. parce que lii yëpp bu ko deful woon ba bay wax maa tey xëy na lii yëpp du am. mais coow li yëpp moom la mais finalement ñee ñoo ci jëlee. waaw loolu laa la loo gis rek dem na ba ba mu yoo yoon dina ci dugg. ay daan mën na ci am. lépp loo gis rek dem na ba taxaw yoon dina ci am yoon. Mhm. loolu moom moo loolu moo fi teg yoon te loolu moo leen fi teg war nañoo mën a dépasser tam ay limites yoo xamante ni. tey Guy mari Sagna man dama ko naw parce que lii yëpp la ñëpp xaaree woon ci moom mhm. Guy mari Sagna mënuma wax ba tudd duma ko tudd mhm. parce que tey ñëpp sax dañuy euh, Barthélemy euh, nit ñi dañ koo nawoon mais dañuy gis Guy Marius Sagna dañu luñ ko nëbb rek nga suñu mbokk chrétien yi ñu respecté doomu aadama lañ mhm. te bu ñu xasee ba jàpp nit rek man dama ci am ay xarit depuis enfance dañ lay dañ lay wormaal dañ lay bëgg dañ lay jox sa dayo parce que dañuy xam ne yow nit nga dañ lay jox mbëggeel bi nga xam ne moom lañ warloo ak yow. Mm-hmm. en tant que sa xarit da ngay da koy sentir à chaque fois nga nga nga dend ak ñoom. Mm-hmm. mais ñun ñoo mën a jàpp sunu moromu jullit. Mm-hmm. di ko di ko yàq di ko yàq. di ko yàq ba mu yàqu yaxeet ba boo ko gisee te xamoo ko sax da nga koy bañ te gisagoo ko. kon am na loo xam ne ñoom doo ci gis kenn ci ñoom taxaw man ba ma juddoo ba tey doon man. mosuma gis chrétien bu taxaw ne cardinalam wala lii ak lii même bu dee koo xam ne amul ngëm ci tubaab doo gis mu taxaw ne diw mii kat dañu respecté religion jàmbur duñ ci dugg te xuusuñ ci waxtaanuñ ci wala ñu jàpp sëriñ ñu di ko ŋàññi du dëgg du yoon. Mhm. nañu xoolaat suñu toogaay ñun en tant que sénégalais gaal gi ñun ñëpp ko bokk kenn mënu koo xar ñaar te ku mu mënu cee bedd tas sa bopp te booy dem te xamoo foo jëm dellu fa nga jóge woon parce que mënoo protéger sa bopp en en tant que yow. doomu aadama bi nga xam ne xëy na tarixa bu bokk nga ca wala bokkoo ca bu ñu lay jàpp di la lynch ci biti kenn du ko fekkee dangay ngay obligé di ut ay garde corps wala ku la garde te fekk sa làmmiñ moo la dugal. Mm-hmm. mais tey est du ñu dem ba euh, ñaar député yooyu ñu dem ba daal di génn assemblée parce que acte bii ñu jot a def est-ce que tamit mën na nekk loo xamante dina waajal ñeneen ñi ñuy ñëwaat ci assemblée ñu gën a mën a am retenu ba nga xamante ni bu ñu leen provoqué sax. ñu mën a ànd ak. Chérif lu raw lii am na fi li ñu defoon président Ousmane sonk moo gën a weesu lii fekk nit ku taxaw nga ñëw dugg ci gardem lii c'est la énième fois mu xew xëy na bii jigéen la entre jigéen ak góor mais président Ousmane Sonko xeex na fi xeex boobu daaw. Mhm. avant ñuy dindi di immunité parlementaire am xeex na fi xeex bi te nit a fekk mu taxaw mu sonk wax ko ay wax yu naqari ba pare dellu sonk waaye nit ku nekk rek la ngay def après danga koy def mais xamoo lan moo la ciy fekk. kon lii bu kon ne mën nañ ne euh, rek dëkk bi dafa mel ni dafa am ñaari justice kon. waaw ñaari justice moo am man li ma d'accord mooy il faut yoon am ci yoon. Mhm. parce que warul dóor jigéen. Mhm. dóor moom warul dóor jigéen moom. mais Amy Ndiaye làmmiñam moo ko dugal. Mhm. alors euh, kii defe naa ni euh, asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum. Euh, kooku dem na aha yaay booy ñu bàyyi la nga àggali fi nga tolloon sànq. waaw man dama bëgg nit. Mhm. respectel sa moroomu nit en tant que nit. Mhm. bul jàpp sa bopp def leen maam def sa bopp maamu lu def nit ñi sa maama ji. Mhm. nit fi nga teg sa bopp si kawewaay jëlal nit ñi teg fa sa bopp. nit nag boo bëggee noppalu da ngay jël suufa bu mel ni basang surtout jigéen oyof. di wax nànk di dal nànk civilisé mel ni say moromu jigéen yaa ngi fa fekk. parce que nit boo xoolee say morom nga xool seetu ba xàmmewoo sa bopp. war ngaa xool sax ña nga dendal boog bu dee seetu bi yow xàmmee woo sa bopp nga xool say nawle yi nga nekkandool assemblée te ñu civilisé jàng doon intellectuel parce que yenn yi buñ ne du jàng di nit dem nga sax jàng alxuraan gën a civilisé ki jàng tubaab. Mhm. ci comportement ba ci kàddu parce que da ngay gis sax yenn saa ñi jàng alxuraan dañu gën a am yar dañu gën a am ak taalibe ñi nga xam ne dañu jàng français parce que am na ci loo xam ne boo xamee yàlla tuuti rek wala nga gës tuuti rek. sa digganteeg sa borom ak sa digganteeg nit ñi dina am lu bari loo ragal a def. Mhm. mais am na ñu naan ñoom souvent bu député opposition bi jógee di wax. ñoom it dañ fay nekk di yóoxu parce que loolu aussi am nañu ku ma ko signalé léegi dafa mel ni ñoom aussi euh, loolu moo comme li kii wax dafa am ñaari parti ku ñi bokk ci Omar Youm ak ñi bokk ci Farba Ngom léegi ñoom la ñu jël euh, ñu taxawee taxawaayu ruube noonu laa ko mën a waxee. est-ce loolu da nga koy. non non da nga koy gis ci image yi ñun image yi moo ñuy wax lépp du ñu créer dara Farba da ngay gis femme bi bi ñu bi coow li amee da ngay gis Farba ni mu defee def deux pas def trois pas def quatre pas. toujours ba ñu lay junj ci loo xam ne ñoom bu ñu la ci junjee ba nga dugg après yow yaa ci si biir payer les pots cassés mm-hmm. parce que bu ñu demee di la duma en tant que jigéen am nga boroom kër amoo borom kër laa sa sutura mooy xaweeku balaa tam yi dem ci yoon di ñëw dana fekk ne yow ka la dóor mm-hmm. moom dóor sax du ko rëcc lu mu am jël lay doon mais nag war nañoo xoolaan ne sénégalais toll nañ ci dimension boo xam ne xiif bi dund bu cher bi yaa ngi dégg tali yi nga xam ne comme ni ko waajooju mhm. waxoon nekk au fin fond des village mhm. nga bëgg am yoon bu la yóbbu hôpital wala yoon booy voyager boo xëyee fajar bu lëndëm bala ngaa egg dix heures mhm. fa nga jëm am na ci yoo xam ne war nañ ci mën a taxaw ci dund gi ci ci ci ci éducation bi ci sécurité sénégalais yi yaa ngi dégg ci lu bari loo xam ne sénégalais de l'extérieur la ñuy jooy bu ñu bëggee seen këyit duñ ko am facilement Mm-hmm. ñu ñëw Sénégal sax lijjanti ko da ngay gis koo xam ne day bëgg passeport am wala mu bëgg carte d'identité am pour mu am ko foofu mu nekk parce que consulat ba loolu moo ko fa teg. Mm-hmm. dafay préférer moom xaar ba ñëw Sénégal lijjantiwaat ko fa. Mm-hmm. te loolu warul nekk dëgg warul nekk yoon sénégalais yi fi mu nekk nii dañoo sonn war nañoo mën a nag jàppale sénégalais yi ci taxaw wax lan la ñuy jooy ak lan la ñu bëgg. nit ñaa ngi feebar bëgg faju mënuñoo faju boo demee hôpital am fa benn rendez bu bala ngaa amaat rendez bu sax boo moytu sa feebar yokk ba nga génn àdduna parce que dañ lay jox rendez bu yoo xam ne du doon lu jege. Mhm. pour nga hospitaliser sax da ngay xaar wala opération da ngay jël rendez-vous boo xam ne day sori ay weer. Mhm. te lu nekk xaj na ci. ayca ñu jël kii ci asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.